wante au-delà de Ousmane Sonko c'est la démocratie sénégalaise qu'on veut agresser te duñ ko nangu. dama ne mbokk yi waxu lay wax place bi yàgg naa fi taxaw te yàgg nañ fi xeex te chaque fois yàlla def na ci surtout dañu am ci ndam mobilisation résistance loolu mooy démocratie loolu mooy patriotisme. Je m'adresse aux étudiants de Cheikh Anta Diop. Mobilisez-vous pour le 23 juin. Répondez à l'appel du MDD. Je m'adresse aux ambulants. Je m'adresse aux mécaniciens. Je m'adresse aux chômeurs. Je m'adresse à ce vaillant peuple. Levez-vous et mobilisez-vous. Il s'agit de votre avenir. bu leen may Ousmane Sonko mu leen di gën a gore parce que jàng na macha allah su ko neexoon tey dem wuti liggéey bitim réew wala def leneen. jàng na gën a école dem wuti liggéey dugg administration di liggéeyam réewam ba ñu dàq ko ci ndax la ndax askanam jog leen te ngeen taxaw bëgguñu xam ku ànd ak kan suñu yoon newu ci ñun Sénégal moo ñu ñor suñu eggee nag ci élection ku mu neex nga sànni sa xob ci ku la neex wante Sénégal bii à partir d'aujourd'hui il n'y aura qu'un seul otage dans ce pays ce sera Macky à partir de maintenant ce sera le seul otage dans ce pays parce que Macky Sall a décidé de prendre en otage la démocratie sénégalaise. La démocratie sénégalaise n'a pas de couleur, elle n'a pas d'ethnie, elle n'a pas de confrérie, elle n'a pas de religion et elle ne t'appartient solo. Macky Sall nee na leen da ngeen di dem élection le 23 janvier 2022 lépp ay kàcc la. ana ñoo amoon carte électeur fi yëkkati leen seen loxo yi. waaw yéen nag ngeen ñëw taxaw fii ñu leen yéen ay doomu Sénégal ngeen wotey woon te yéen du ngeen bokk fan la ko teg yan loi bi moo ne Macky Sall may dégg la loi électorale nee na at bu nekk mu am élection ak ñàkk am élection at bu nekk 1er février ba juillet képp kuy doomu Sénégal nga bëgg pindu bindu commission mairie bu nekk commune bu nekk day am commission ñaari at ngi nii Macky Sall lank bañ teg commission wante moom ci ñaari at yooyu moom dugal na ci fichier bi quatre cent mille ñëpp xamuñu sax est-ce que ay doomu Sénégal la mu ne ñoom dañuy voté wante yéen du ngeen voté kooku dinañ ko lijjanti à travers la mobilisation Macky Sall nee na du ngeen jot ci carte électeur yi parce que tant que amul commission foog ngeen dem ci commissariat de police yi te su ngeen fa demee dañ leen di jox ay carte d'identité bind ci yéen bokk leen ci fichier bi loolu tamit mobilisation bi dina tax mu tàkk bu ci des Macky Sall nee na moom 2022 bii fas yéenewul organiser élection locale mooy maire ak élection député mooy législative mobilisation bii dina ko lijjanti Macky nee na moom lu mu ndàmm mooy jël législative te mu ngi may déglu dàq ko ba parce que gis ngeen dëkk bi gis ngeen lu fi xewoon ci mars dernier lu tax mu wax leen waxu élection locale somnifère la def leen bëgg a nelawal ngeen tàpp seen xol yi ñu dem ba 2024 ngeen yaakaar am présidentielle mu joxaat leen beneen somnifère ne leen député la dama ne 2024 présidentielle tu pars pas de présidentielle tu pars d'accord ngeen woon d'accordu leen d'accord ngeen woon d'accordu leen 2024 présidentielle tu pars pas de présidentielle tu pars parce que démocratie bi du sa moomeel démocratie moo tax nga falu nekk président du Sénégal démocratie mooy tax keneen di fi falu fii nekk fi président du Sénégal marché les gares routières à l'université dans les grandes places sensibiliser les Sénégalais leur donner des flyers leur demander de se mobiliser contre la cherté de la vie contre l'agression de la démocratie contre la liquidation des adversaires soi-disant politiques